point de presse ma bëggoon leeral wax ji lii du conférence de presse ci gàttal du am question du am réponse point de presse bi nag mooy ñëw waxtaan ak askanu Dakar parce que lu jot a xew tey loolu daanaka dafa dépassé yebel ak maa tey kenn xamatul lan la dëkk bi daal ci gàttal dafa am benn waay bu fi nekk ñu koy woowee makisal moom lu mu namm mooy troisième mandat ñun lu ñu namm mooy lu ñu yoon may ci ay sañ-sañ ba mën a jëlee lu fi nekk moom nag nee na moom lu ko neex lay def parce que moom mooy yoon foofu nag la naxee boppam moom ci boppam ci élection locale yii bañ ko duma ba duma ko ba xamatul fan lay fan lay jaar mu taxaw ne que moom ala kuliyaal sax loolu moom nekkul métti ci moom parce que moom musul gagné Dakar moom moo ko wax ñëpp dégg ko gémmiñam suñu nopp wante ba tey waxul askanu dakaar lan la def ba gagné soi-disant élection député yi fi amoon ci 2017. mooy bu mu fokkatee juróom-ñaari siège député yi. te loolu bu mu koy def mu koy def ci ñetti waxtu ci guddi daal di jiital lii di ordre de mission. bii yoon nag mu xam ne ni ordre de mission du jàll. mu xam ne ni que effectivement parrainage bi dina jafe lool pour mën a. invalider liste Yewwi Askan Wi ndax parrainage parce que luñ ko dóor fii ci élection locale yi Euh, lu ci des pour mu mat cent mille voix wax dëgg yàlla bëritul te lu luñ ko dóor ci biir Dakar mënul daw ba dappi ko kon nag lu mu def mooy nee na comme dafa sës nee na day jaay doole ak lan ak yabeel wax ji mooy lan mooy coalition Yewwi Askan Wi dafa am benn mandataire mandataire bi mi ngi tudd Déthié Fall Déthié Fall ci boppam nee na liste bu bu ñu fësal nee na moom déposé wul liste boobu nee na moom lu mu déposé ak lu waa direction générale des élections génnee bokkut ñoom na ñoo jël suñu list ñu falsifier suñu liste daal di dindi ay yenn tur yi def du leen neex parce que amoon na luñ ci namoon wante loolu yëpp amul benn problème parce que ñoom bu ñu ko defee ba ñu gis ñaawteef ba ñu def dañu dem gëstu lii di code électoral mooy loi bi loi bi nag lu mu wax ci article cent soixante-dix-neuf ci gàttal nee na suñu déposé lépp ba lépp a jeex nee na soixante seize jours balaa jouru élection yi mooy daanaka dimanche dernier nee na à partir de soixante seize jours yooyu mooy dimanche dernier yoon may na direction générale des élections juróomi fan donc daanaka ci gàttal tey ñu ngi mercredi donc dese na leen encore yeneen ñaari fan pour ñoom ñu mën a bind suñu mandataire wax suñu mandataire que dafa am ci liste bi ay ay éléments wala ay nit yu mën a invalider liste bi kon am nañ ko ba ajjuma wante ñun ba ñu gisee ñaawteef ba ñu def ñu ne ñun duñ leen may ba ajuma lu ñu may lu ñu yoon may ci sañ-sañ te ñëpp gis nañ ko démb ñëpp dëgg nañ ko démb démb suñu rakk suñu doomu ndey suñu xarit monsieur le maire Pape Madiop Diop ci coobareem boppam taxaw na nee na moom day désisté loolu yoon moo ko may am na droit ne man bëgguma bokk ñëpp ko gis ñëpp ko dégg waaw maintenant ñun ñu xam lan la gars yi namm ci ñaawteef bu ñu def ci suñu list ñu woo ñaari nit ne leen gars yi lii la gars yi namm ci ñun te ñun ñu ngi leen di waajal dumma ci dëkk bi ba dëkk bi am cohabitation donc ñu ngi sàkku ci yéen comme ñoom dañu daal di falsifier suñu list lu ñu déposé woon nañu dellu siwaat ci loolu yéen ngeen bind seen liste seen seen lekk de désistement ñu remplacer leen te yoon nee na su ñu toogoon ba àjjuma DGE notifié suñu mandataire wax ko lii seen liste lii mooy manquement bi wala lii mooy irrégularité irrégularité yi yoon nee na suñu mandataire à partir de àjjuma yoon may na ko yeneen ñetti fan pour mën a rectifier yoon nee na rectification yooyu mooy remplacement de candidats inéligibles mooy ay candidats yu am ay casier judiciaire euh, yu am ay condamnation wala te nee na loolu day am sans préjudice de l'ordre d'investiture wala mu ne substitution de pièces périmées daanaka sa carte d'identité périmée à partir de ajuma joxaat nañ la ñetti fan pour nga changer nit ñooñu parce que seen pièce d'identité dafa périmée wala ñu ne mu ay dossier yu comporté ay erreur matérielle erreur matérielle ñoom ci lu ñu jalgati ak ñaawteef bu ñu def loolu la ñuy considérer était erreur matérielle mooy daanaka dañu bëgg a gëmloo askan wi ni que ñun ñii respecté wuñu parité mais dama ne loolu sax su amoon yoon lu mu wax article cent soixante dix neuf leer na tey nag ba ñu demee direction général des élections ñu ne dañuy demee rectifier bi ñoom ñu ne duñ ci duñ ci ànd ñu daal di woo ñaari huissier de justice huissier de justice dañu nekk ay agent assermenté ñooñu seen liggéey mooy lan mooy fépp biir Sénégal am nañ droit ñëw taxaw pour def constat pour ëllëg su ñu demee tribunal ñoom ñu ñëw constater taxaw ci kanamu juge bi ne ñun bës bi ci bërëb bi ci waxtu bi lii lañu gis gars yi dem foofu ñu ne leen duñ fa dugg loolu moo indi coow bi ci buntu direction générale des élections policiers yi nag ci dëkk bi dañuy bokk di liggéey seen liggéey amaana peut-être taxawaay bu ñu fa amoon peut-être am nañu ci gis seen bopp policiers yi ay doomu ndey lañu ñu ngi leen di jëggalu wante Macky Sall moom la ñuy waxal dama ne. moom bu mu demee ba jéem a xool lan lay def ba seeyal mairie de Dakar amu ci ndam mu dem ba xool lan lay def ba tabb maire de Dakar par décret présidentiel amu ci ndam mu jël maire de Dakar tëj ko ci kaso bi jaay ko doole fokkati mairie de Dakar ci loxoom 2017 yéen ñëpp gis ngeen lu mu def ak juróom-ñaari siège yu député yi ak ordre de mission yi bii yoon nag mu taxaw moom xam na mu ngi may gis mu may seetaan mu ngi may dégg xam na bu baax a baax a baax que cohabitation day am moom xam na ko waaw xam na ko mu ne comme mbir bi ñi la tëddee naa leen jaay doole doole bu ba nga ba ñu bëgg a jaay nag du jàll mu dem ba ci biir ne nag naa leen jaay maa tey maa tey maa tey kay faj dama ne président Macky Sall su ma baat ci kaw Dakar problème bu Dakar tuddul Abdoulaye Diouf Sarr du moom ak ñun problème mu Dakar tuddul Amadou Ba du moom ak ñun problème mu Dakar tuddul Alioune Ndoye du moom ak ñun problème mu Dakar mooy Macky Sall te dañ ko fas yéene lijjanti comme moom nee na Dakar jàmm du fi am moom tamit na xam ne ne jàmm tamit du ko am parce que lii kenn du ko nangu moo tax may sàkku ci askanu Dakar nañu taxaw tem may sàkku ci ndawu Dakar yi nañu taxaw tem duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg moom nag moo xam lan la ko mbir bi jaral comme moom nee na ala kulli àll yeewi askan département de Dakar ñu bokk moom na xam lan la ko mbir bi jaral ñun tamit xam nañ lan la ñu mbir bi jaral kon nag ñu ngi biiralaat suñu kàddu yi ñu ngi ñaax askanu dakaar nañu taxaw na ndaw yi askan yi eh, na ndaw yi Dakar yi tamit taxaw te tamit moom président Macky Sall tamit mi ngi jéem a xool naka lay jalgati liste Yewwi Askan Wi ci département de Mbacké département de Mbacké département de dakaar soo leen tegee ensemble daanaka ci gàttal mët na presque quinze députés presque quinze députés ci ñaari département moom nag fu mu nekk tey nii département yu am benn candidat wala département yu am ñaari candidat moom loolu moom tegu ci bëtam moom problème am mooy département yu am juróomi député ak département yu am juróom-ñaari député dama ne Dakar président Macky Sall xam na lu ko fi xaar Mbacké xam na tamit lu ko fee xaar kon nag dama ne askanu Dakar nañ taxaw tem noonu ndaw yi taxaw ba ñu xool nag mbir mbir bi nu muy tëddee parce que nag dëkk bi ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk nañ ko teg ci yoon fonctionnaire yu nekk direction générale des élections nañu xam lan la leen mbir bi jaral lan la leen mbir bi jaral bu fi kenn xalaat ne ni une seconde dangay def lu la neex teg ci nag wekk ko ci maa tey te dara du ci fekk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen